dama doon zappe laajte ñu ni mooy mu jël saa way wi jëmale ci yéen jox askan wi ñuy bége dama doon zappe laajte ñu ni mooy mu jël saa way wi jëmale ci yéen jox askan wi ñuy bége dama doon zappe yam cib seen laajte ñu ni mooy Thiénaba TV ma jël saaway wi jëmale ci yéen jox askan wi ñuy béggee suuni gàmm maasiya Thiénaba TV la ni suuni gàmm maasiya Thiénaba TV la ni yéenay saagub diine ji waa daara bég nañ ci dama doon zappe yam cib seen laajte ñu ni mooy Thiénaba TV ma wi jëmale ci jox askan wi ñuy bége dama doon zappe wi jëmale ci